maa ngi fi rek mbaa yéen a ngi ci jàmm. Euh, ñoo ngi ci jàmm macha allah alhamdulilah di ko yaakaar ci yow. ah alhamdulilah. waa mel na ni am na loo ñu bëgg a euh, yegsee. waaw waaw effectivement. oui oui effectivement moi je suis euh, maa ngi nii ci kër El Hadj maître El Diouf Mariste. waaw nga xam ni euh, gars yi dañu ko songu. Mhm. Euh, ci booru euh, vingt heures yooyu la ñu fi ñëw. Mhm. nekk ay nit ñu bari bi ñu ñëwee nag gardien bi la ñu fi fekk. Mhm. mais heureusement moom dafa génn sauver bakkanam. xaale yi dugg ci biir bi ñu duggee ci biir également. songu garage bi première deuxième ba troisième. am matériel bu am solo bu nga xamante ne ni yàq nañ ko fi lakk yi tamit garage bi ba fi mu nekk. ni dal bi mi ngi waaj a daanu. Mhm. leneen li ci des mooy dégâts matériels yi foo ko nag weesu na ko. Mhm. Euh, lépp lu fi nekkoon ci matériel maanaam ay télévision euh, écran plat euh, sàcc nañu ko wala jël nañ ko yóbbu ko. Mhm. loolu moom la ñu fi ràññee jamono ji may wax ak yow. il euh, y a un détachement de la gendarmerie ñoom ñi ngi fii mhm. def nañu constat bi mais li ñu wax daal mooy amul euh, kenn ku ñu fekk ci kër gi loolu moom la ñuy wax rek alhamdulilah parce que fekkuñu fi benn nit mhm. gardien bi rek moo fi nekkoon waa kër gi nekkuñu fi woon mhm. loolu moo tax amul benn dégât bu nga xamante ni mën nañ ko noter muy perte en vie humaine wala book nit ku ci gaañu li ñu remarqué daal mooy yàqu-yàqu yi yéeg na ba ci kaw xool waaye euh, pièce boo dugg ni moom moo fa nekk euh, loolu daal mooy li nga xam ni moom la ñu remarqué fii ci Anne Marie li nga xam ne moom la ñu remarqué daal moo di kër maître El Hadj Ousseynou wala maître El Hadj bi nga xam ne moo nekk fii ah, te ñetteelam bi nekk fii euh, dara dara ci matériel desatu fi lépp yàqaate nañ ko euh, télévision yeeg yëpp yóbbu nañu ko ah. loolu daal mooy situation bi nga xam ni moom lañ leen bëggoon a baaxee ah. jamono ji maa ngi si buntu kër gi ñaari auto gendarmerie ñi ngi fii taxaw di veiller au grain pour que yeneen cong bañ ci am